moo di àllu ngay na bi ngeen doon dégg ci biir tabaarakallaahu mbokk mi yaakaar naa ne kan moo tëdd fii. fii de sunu maam Maysa Gaye. maam Maysa Gaye. nga xam moo jur Mor Gaye jur Xaalim. Mhm. ak Mamadou Gaye. Mhm. Mhm. jur Mor Gaye. mi jur nga xam moo nu yar ñun. ba nu toll ni mu soog a génn àdduna. Mm-hmm. loolu ñeme fi. kon daal maam Maysa Gueye moo nekk nii. moo moo nii. moo doon borom ay ki ñu doon wax sànq ci histoire bi. maanaam mooy borom alxuraan bi. Ah, mooy borom alxuraan bi tudd. moom loolu loo ne. boolewul woon lenn lenn. Mm-hmm. ak alxuraan. Mm-hmm. léppam alxuraan la léppam jaamu yàlla la da ko bañ ba dafa bere woon ci àll bi sax mm-hmm. yor fa ay dongo mm-hmm. muy daqaar gële mm-hmm. muy daqaar gële ak ci dongaam ne ba yàlla mayoon ko sax soxna si jinni soxna si jinni si daana ko mais soxna si daan def soxna si daana ko indil ay yi di ci xéewlu mu jëlaat ndab yi di dellu soxna sax boo de boo ñëw kër ga day ak njabootam ne leen bis na nag bu aayee laa maanaam su fa aayee. maanaam togg gi. togg gi. Hmm. war a ñëw ci bi. Hmm. day wax ne waa këram. Hmm. njaboot ga ni leen kat tey guddi tey moom. kenn ñëw ci kon dafa mel ne kon daal fii li ma ko jàppee mooy dafa nekkoon pénc wala ay armeel rek moom mu desoon fi. fii nii. fii pénc la. Ah, kon dañ ko roboon ci jàkkaam. maanaam fii daal moo jàkkaam. fi la nekkoon fi la ñu ko denc. lii kon nag euh, jërëjëf lii rek lañ leen bëggoon na woon ci vidéo bi te niñ ko wanee rek fële ci pencum ngeen nga xam ne sant kee itam ñoom itam fii daal wax dëgg yàlla mandarga bu ne mi